mbokk ñuy seetaan dañuy déglu ci euh, Thiès Info ak Thiès TV euh, ñu fii ba léegi nga xam ne moom mooy euh, buntu Thiès nekk fi nga xam ne moom la mbalit bi nga xam ne moom lañ dajale ci biir Thiès yëpp fii lañ koy sottee mu nekkoon nag ay jafe yoo xam ne askan wi fi dëkkee woon nañu fi ay jamono ñu def fi ab pour wane li nga xamante ne mooy mbalit mi nga xam ne sotti nañ ko ba mu dem ci digg tëli ba nga xam ne bu ñaari oto di ñëw sax kenn ki day taxaw pour xajal keneen ki mu nekkoon nag jëf yu doy waar ñu bëri nag joxoñoon ab baaraamu tuuma maanaam société bi nga xam ne moom moo yor wàllu mbalit bi waaye tamit maire bi nga xamante ne moom moo yore wàllu mbalit bi loolu nekkoon ay jafe-jafe yoo xam ne askan wi yëpp doon ci coow indi ci ay wax Thiès nga fa ñëwoon def fi reportage waaye tey Thiès nga fa dafa delluwaat gis fii li nga xam ne moom mooy société boobu nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu mbalit gi fii ci biir Thiès gis leen ak seen i euh, machine ñu ñëw fii pour wàllu rëdd yoon bi nga xamante ne moom moo waroon a njëkk jiitu bokk avant lii di am yoon boobu tey ñu ngi dégager mbalit bi di ko rëdd dañ ciy jàkkaarloo ak ñenn ñi nga xamante ne ay responsable lañ ci société bi pour laaj leen anal moo waral tey liggéey bi ñu amal ko fii nga xamante ne moom mooy décharge bi nga xam ne fii la ñu sotti mbalitu Thiès yëpp.